waaw waaw ñu ngi lay. doomu Parcelles ci loolu. dafa am ba tey noo waajee. yàlla ñu yàlla may ndam. yàlla ñu yàlla may ndam. am ba tey ni nga ñëwee ci làmb ñu gis daawoo ñëwee noonu ci làmb ñëwee nga beneen ñëw bu dul ñëw bi nga daan ñëwee ci. weer oui yàlla ñu yàlla may ndam. dafa ni nga dugg see si làmb tey. yàlla ñu yàlla en tant que doomu Parcelles. yàlla ñu yàlla may ndam. waaw. dafa am ba tey tey làmb ji tey noo bi nga dugg see si bi làmb loo yëg. sant yàlla rek waaw. dañuy bëree walla dañuy xeex ba pare soog a bëri. yàlla ñu yàlla may si kanam dina leer. nga ne si kanam tuuti. dinañ gis li may indi incha allah. ah yàlla ñu yàlla may ndam. dinañ gis beneen Tapha Mbeur. yàlla ñu yàlla ah, de dina di xeex ba daaw. ñu koy xaar. Ah? ñu koy xaar. ah. Tapha Mbeur mbokk yi Tapha a ngi noonu de. waaj na combat bi ànd ak i mbokkam de waaye gàmm geey tamit nee ko dannu ma. cey làmb tey ey Tapha Mbeur Gamou Gueye